xaw na yàgg loolu damay ñaan suñu borom li nga xam ne dañ ko bëggoon a wax à l' national te amuñu fa accès sëriñ sëriñ Galas lañu ñaan suñu borom ndax mooy dogal mu dugg fa faj lépp lu ñu naqari woon. faj leen loolu. parce que Serigne Galas Touba dafa manqué lu bari surtout nag waa Gédé ak waa Mbusoo bi fi ñu dëkk te amul lu dul Serigne Amar Bousso sama maam.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 ay nit yu ñu war a teewal ca assemblée nationale fii ñu jël sëriñ galas boole ko ak délégation bu mu war a àndal war ñu fa teewal ku xam sëriñ galas nag xam ni ci kër gi la bokk man yaakaar naa ku ma xam xam ni bi ma gënee nekk tout tànk sëriñ galas mii daan nagee allié ak otoom bi ma jël si tawfeex di ma yóbbu këram ma fa yeetu ba ngoon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 bi nga daan dem dakaar da ngay am 5 de temps ci yoon wi léegi loolu jeex na fi Dakar heure bu la neexee boo nekkee Touba boo jugee dem péage baa ngi nii soriwul. hôpital boo mun ci Afrique ñu indi la ko tabaxal la ko fii booy gën Daaru mu Musse booy gën Touba ko gis. bañ ñëw ñëw ci xal ñëw ci xalifa bi ni ko yaay sama baay yaay sama sëriñ yaay sama xare. doyatul ni ko loo bëgg ci Touba looy waaj a bëgg wax ma ko ma defal la ko kooku buñ amee ngor rek nag nan ko fa tàccu leen loolu Macky Sall dama ni ku la defalul ku la defal lu baax nga wax ko Macky Sall bu dee bëgg ngaa dégg-dégg mi ngi defar dëkk bi mi ngi defar réew mi fonk na sunu sëriñ bii teg na ko place def na ko bàyyi def na ko sëriñ ñun waa Touba de ñun ñun laa bu nu amee ngor am fu la dëgg danañ jàppale président Macky Sall mu faluwaat toog ak ku mu àndal maa ngi koy ñaanal Serigne Galas di ñaanal ni Macky yàlla jël ndam ni wasalaamaaleykum wa rahmatulah. teg ci suñu loxo yu baax yi. ñu jàllaleel ñu ko ci suñu maam suñu xarit sëriñ Amdi Moustapha buso xalifab sëriñ Omar Bousso di ko ñaanal yàlla suñu boroom gën ko yàggal te defal ko wér te def barke ci njaboot gi di yóbbante itam sëriñ ci suñu maam sëriñ Ablaye Bousso di ko ñaanal yàlla gën ko yàggal te defal ko waaye di fàttaliku tey ñaanal sëriñ Aliou Bousso suñ Bada suñu boroom dolli yërmandeem te taas ñu ci barkeem ñu ngi nuyu suñu bàjjan yi di yëkkati nuyoo bi di ko teg ci suñu bàjjan suñu xarit soxna Bintu di la ziyaare di am mbégte bu baax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 ñu ngi ñaan nit ñi kenn ku ci nekk nga falaw fi nga nekk def sa yitte ci fa ngay votee bu la jegee sa tànk di fa dem wala sa oto ak matuwaay wu mën a jënd oto yi naam di naam mais nga teel a yitte ji dem jàppale ñu voté liste bi ci kaw yar kaw teggin comme ni ko sëriñ bi bëgg et puis mooy loo xamante ni dëkk bi loolu rek la il faut am ñu ngi yàlla baax. di am mbégte lool ci taxawaay bi ak yitte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu